asabi yawmati asabul jannati asabul nari waromi safara wa asabul jannati waromi aljanna asabul jannati waromi aljanna hum ñoom alfaizuna ñoom ñu way taxe rek laa mo ba nga xam ne jibril jàng na alquran ba ci boobu dafa jëm bëggam waaw def ko ci boppam de yéen ci tam ba mu koy jàng dafa jël loxoom fekk ci boppam loxoom ba joram koo xam ne jibril ne yàlla génn na ne koo xam ne jël nga sa loxo nga yow teg ko ci sa bopp nga jàng damaa am sama alquran wala ñu jàng ko fi yow ba mu jaar yàlla jël na ne dana saafara ci sa yaram yëpp jàngoro lu ci dee laaj ma jàngoro law am sama donte wasal nanu alquran bi daal alquran ala jabalin ci ubaj la raay sa ko tam gis ko ah si am na yoo yàlla mu def ko gàncax gi mu wàññi xotee bu mu xasee ci laay yi ragal yàlla de laay yi yéen koy dégg te jërëjëf ak saggan waaye su fekkoon ni aw doj moo dégg alquran ni ngeen koy dégg yéen doomu aadama yi déggal la ñuy kon nag moom mën a xotee ku mag pour pour nga ragal yàlla de ba ci kalam daal yooyu la léegi nabri ba adama mu jàpp naa si ñeent ñi la alam ba ñoom te tafakkaroon ñu xalam yàlla ngeen di léegal loolu ndax yéen itam ngeen xalam ba xam ne. waaw bu ngeen di jàng alxuraan bi war ngeen a jàpp dana ngeen jooy te bu leen bu ngeen mën a jooy ngeen jooy jooy woo moom laaw mooy yàlla lépp yàlla mi nga xam ne daal laa déglu booy jàmm ci dëkk yi laaw dara moom aadima xëy na mu ay xaw a faddu wa saara ci ak teewu woo moom rahmaan moom day ay xewam bi nga lépp ci àdduna rahim moom day ay xewam bi nga ci àllaaxira woo moom laaw mooy yàlla lépp yàlla mi nga xam ne daal laa déglu booy jàmm ci dëkk yi laaw dara moom almaliku kadi buur alquddoosu kadi aji sell jëmmam sell na amul jënn wàññeeku meloom sell na amul jënn wàññeeku jëfam sell na amul jënn wàññeeku de assalaamu moo way borom mucc ci mboolem wàññeeku yàlla jëmmam mucc na jëfam mucc na meloom mucc na jëf yi ci tàmbi tàmbi ci wàññeeku yëpp wàññeeku la ca xaq jàmba waaye mat la ci wàllu yàlla rek wàññeeku bu xam ci ndigal yi mat la ci yàlla rek lu tax yàlla dawala ma ca afal jaam bi dara def lii lum bon daal jaam ba def ko moo mat ci yàlla ndax mooy lam na moon xam su fekkee lam na moon moom moo wàññeeku kon nag jaam bi moo wàññeeku waaye yàlla moom mat na rek al mu'minu moo di aji dëggal ay yonentam ci mujjiza al muhayminu mooy aji seeru dara nëbbu ko al-aziizu moom rek aji dëgër al-jabbaaru moo aji mbéy ci njëriñam rek al-mutakabbiru moo aji rëy yàlla ay ci rëy nële rëy waaw sama lambaay la waaw màgg sama njëg la pour pour kenn sa coow man nag ma sànni la ci jaanu wala du ma la faay de subhanallah tudd na sell yàlla amma yi ñu koy jëlee leen bokkaale ba rek wa moom daaw mooy yàlla al-xaaliq moo aji bind mbéy mi yéen ab baay yi mooy aji foofu yéen ñu tukkee di ñàkk ak mu ko wéru mooy aji amal leen dara ñëw ne ko def maa wut bi yàlla sama yéen wéra def mooy juróom ñeent ba juróom ñeent ya dal woon ne ko parce que aljanna war nañu yàlla te du dana soppam dara ñëw ko ma ko sama wax dana ci am juróom yàlla wala def juróom yàlla woo moom bu alaati moom ali aji la alaati mooy aji kala ci ñettee ko mbir